alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihim ila yawmi ddin ixwat al iman wal irada assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu yéen bokki jullit yi yi teew ci barab bii yëpp noo ngi leen di nuyu di leen siyaara tey jiital ci nuyoo bi kilifa yu baax yi tedd yi nga xam ne ñoo teew ci barab bii di sunuy kilifa ngir gungeenu gunge njaboot gi ci liggéey bi nga xam ne moom lañuy ñuy liggéeyal Eh, ku baax ki nga xam ne tey moom lañ jagleel bis bii di sëriñ Mbàkke Ibrahima di jël nuyoo ak siyaara boobu yépp nag di ko teg ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi nga xam ne moo yor caabi buntu kër Xaadimu Rasuul waaye barab bi nga xam ne it moom lañuy ñuy defee eh, jataay bii bokk ci barab yi nga xam ne way juram Cheikh Mahamadoul Bachir moom la ko sunu borom subhaanahu sédde ci biir njabootu xaadima rasul gépp mu nekk ci barab yi nga xam ne itam ni ko sëriñ Fàllu ka junje ci xasiida googu bokk na ci barab yi sëriñ tubaa tuddan ne cant gi mu jaayante woon ak boromam pour sant ko subhaanahu wa ci barab bii ci barab yooyu lay bokk ndax xasida gi nga xam ne bi liggéey bi àggee moom la bind te mooy katabtu yow ma sabti inda galwaa baada ji aadi wa firaaxi balwaa alhamdulillahi la si xat saaxa aw xat raada liyan mu naa wa saaxaril axraada la daa galwaa wa inda baxfali bi ma bihi uniiru kulla maxfal rabixtu fii tijaarati fii xurbati wa askurul akrama inda turbati dafa wax ne nawaytu shukra u lada daari salaam wa inda tuubaaya bi jismin wa xilaam am naa yéenay bu ma delloo ca réew ma danaa ko sant ci barab yi ma doon déeyaale ak sama borom de ko ñaan lii ba may ma ko muy tuubaa di daaru salaam waaye bu delluwaat de àlla ya shukra u bi fardin wa sunan inda uma wa inda daaratil minan muy daaru minam gii kon li du asaar waxan na ko waaye yëmu cëwan dafa waxam ne bis bu bay demee bay sant cant gi nag duma ci wéet sama lépp ak sama ñëpp danañ ànd sant le ma yàlla ba tey ci xasiida gi yaskuru sal jalaali wal ikraama insha kulliya ila rabbil anam kulliya sama lépp sama fépp ak sama ñëpp ba ci bernde yi ñuy def di ko tudd moom la tëjee xasiida gi muy berndeel nit ki ci ruu ci jataay bu mel ni bii ak berndeel ko ci bernde yi nga xam ne sëñ Mbàkke Gallo Ngal ñoom moom lay gi asku askuru oo tawjiihoo xiraaya ilaya fii sëyri wa fii xuraaya kon bàyyiwutoon dara maa ngi ñaan bernde yi nandaj sama dëkk yépp ba ci ñi nekk ci tukki bi ci diaspora bi askuru oo tawjiihoo xiraaya ilaya fii sëyri wa fii xuraaya kon nga xam ne sëriñ bi fa tabaarakallaahu lépp la fàgg woon lépp ci xasiida gi nga xam ne moom la taarixale màggal gi tudd ci ni muy ni mu bëgg ñu màggalee ni muy xale yi sucre o bi fardin wasu nan inda uma wa inda daaritil minan kon buñ amee bis bu toll ni bii jagleel ku ku toll ni kii di sëriñ Bakke Ibrahima defee ko ci daaru minam gii sëriñ bi waxaat ne bokk na ci fi sante sunu borom ci bis bii kon dañuy xam ne daal sëriñ Touba kenn rekk la mu mel ni nag sëriñ Bakke Ibrahima doy na ci rekk moom doomi mam mam balla ay sëla ak soxna Fati Balla al Kubra moom sëriñ Balla Fakujja moom maam Muxtaar Numbe kon wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu maam maaram mooy sa maam moo jur sa way jur waaye sëriñ kokki maxtaar lumbe mooy sa maam moo jur sa way jur wu jigéen loolu day na sëkk waajtaay ndax lislaam day wax ne doom jim bëgg nga waajal ko doo néeg ba mu juddu nga waajal ko waaye danga koy tànnal ay way jur yu baax ndax way jur baax ci la doom di baax ma a juddoo mu juddu kon ci ñaari jur yooyu bi mu tolloo ci jàng xam-xam a ah, jàng alxuraan ki ku njëkk a dalal mooy wayjuram maam Balla Aysa ba mu noppee mu jébbal ko magam di taawub maam Balla Aysa muy Seex Abdul Xaadir mu yor ko ab diir nag jébbal ko ki nga xam ne nag ca moom la yàlla jaaree li ëpp ci mbiram te mooy magam ju baax ji di suñ Mor Anta Sali moo àggale am njàngam ba ci loxoom la bindee kaabilu alxuraan waaye jàngal ko xam-xam ba mu raw bokk ci ñi raw ci réew mi ci géeju ci mboolem fànni xam-xam yépp fa tabaarakallaahu waaye yar ko def ci moom jikko ak melokaan yi nga xam ne moom la jullit war a yor rawatina koo xam ne nag dafa am lu lay xaar ci biir askan wi ak ci biir pénc mi ci ay responsabilité mu ay ci jikko ak ci melokaan e, yu kawe muy loo xam ne rek maam yi Cheikh Mouhamadou Fadil mii doon wax léegi tey muy Cheikh Moussa Ka li mu ci wax rek li mu ci bind doy na sëkk yaa saa ili an ali ibrahima najli abibi laa ikun fa ima fa huwa cheikhun aalimun taqiyun wa shaa'irun wa warahun naqiyun nee na boo bëggee xam cheikh ibrahima mbakke moom maam balla aysa nee na mooy boroom xam-xam bu mag ba nga xam ne rag ku ragal yàlla la ba àgg ci àqatu xaati yi ku dëddu la lépp loo xam ne luy jeex la dëgmal li dul jeex te mooy sunu borom subhanahu wa taala ku sàmm la woon ku set sell la woon wa aalimun wa aamilun wa baariun wa huwa ilal xayraati xat yu shaarion nee na boroom xam-xam la woon bu doon jëfi xam-xamam waaye koo xam ne waxtu woo ko fekk ma ko doon njëkkante jëm ci def lu baax ak wax ko min badi ma ata minal wa daara siitu oo likulli daarisi nee na gannaaw boo xamee ne jàng na ba xam lim war a xam lépp ci daara yi itam turam siiw na ngir xam-xam bu rëy ba ak jëfe ga nga xam ne moo ca moo ca topp kon muy nit ku sell koo xam ne fa tabaarakallaahu e lépp loo xam ne luy war a daje ci nit yàlla daje woon na ci moom diggante mag magam ju baax ji seex Mouhamed Tastari nag liñ ci wax e doy na sëkk ci li mu doonan ci moom ndax moom daf koo jàppe woon e suñu Mor Anta Sëri daf koo jàppe woon ni ki doomi boppam sëñ Mbàkke Ibrahima jàppe ko way jur di ko xool bët way jur ndax fépp foo xam ne fu ko sëñ Mor Anta euh, sëñ Abibullahi muy maam Balla war a na féete rek ci ay taxawaay ak taxawu moo ko fa féete woon féete woon na ko fa ba sëkk ci anam yépp loolu moo waral fépp fu mas nekk moom la fa àndal moom la fa nekkal fu sëñ Mor Anta Sali dëkk ñoo fa nekkal Mbàkke Bawal ja ba ca saalum jë ba ca pataar ba mbàkke kajoor fu mu nekk rek mu ngi nekk ak moom di ko wéttali nekk loxol nday joram ci lépp sëñ Mor Anta jox ko cër bu mat sëkk digalit njabootu boppam gi ñu jox ko cër bu mat sëkki jàppe ko muy seen wayjur rawatina kii nga xam ne nag mooy Seexul Xadiim e nga xam ne moom Serigne Cheikhouna Bousso Thioubène wax na ko Serigne Saliou daanaka wax dégg naa ko ay yoon yoon man ci gémmiñu boppam siyaare ji ko muy wax rek di ma tooñ ba àgg ci loolu nee na Cheikhul Khadim waxtu wu ma saa wax sëriñ bi rek suñ war anta yi la ci jublu waaye bu waxee sunu way jur wa rek nee na sëñ Mbàkke Ibra la ci jublu loolu muy loo xam ne kon wàccuwaay bu rëy la boo xam ne bu mu aman ci moom moo tax bi mu wootee wooteem bii itam bokk na ci ñi nga xam ne tey moom la tànnan ci lépp loo xam ne lu mu xam ne lu baax la wala loo xam ne buñ ko defee dana nekk aw yiw ñaanal na ko mu dikk ko digal mu nekk maanaam conseiller am mayan na ko loolu ci boppam waaye sëriñ bi itam daana doon lépp loo xam ne lu muy laaj kenn xalaat la diiru bu nekk ci kaw suuf moom la jalaan laaj xalaat fonk ko lool ba tukkeem bii muy waaja tukki ci géej gi bi mu koy waajal dafa jàpp yónni Cheikh Ibra Faati ak sëriñ Mbàkke Buso ñu dem woo ko mu ñëw fii ci Touba bi mu agsee kër gi nga xam ne mooy kër gi sëriñ bi nekk ci Touba sëriñ bi daf koo génn dem kër sëñ Numbe kër sëñ Mbad Numbe yëkkati kër googee bàyyee ko Cheikh Ibrahima Fati Cheikh Ibrahima Mbakke ngir fonk gum ko fonk diirub mu fay nekk muy juróom benn weer yi itam Cheikh Ibrahima Fati mooy Cheikh Cheikh sëñ Mbakke Kajoor mooy jiite te itam sëriñ bi moo doon nodd muy lu yéeme moo doon woote pour nit ñi ñëw julli si foofee am na fa ñaari mbir yoo xam ne e, gannaaw boo xamee ne diisoo nañu ci li muy waajal diir ba mu fa am fayal ma ko am na ñaari mbir luñ ko fa wan ndax dafa am bokk ci tawfiix yi nga xam ne sëñ Mbàkke Ibrahima da ko aman diggam ak sëriñ bi mooy daf doon am kasfu ci moom mooy lépp loo xam ne lum ko war a digal dafa mel ni luñ koy wan la ci mbir moo xam ne mbir mu nekk ci kanam la sëriñ bi dëgmal ko Cheikh sëriñ Touba dëgmal ko sunu baram defal ca Cheikh eh, Ibrahima Fati Cheikh Ibrahima Mbacke kasfu pour mu mu mu xam ko ba lam ko ca war a wax bu wax ko ci bokk na ci ñaari mbir yoo xam ne maanaa wax na ko fa lool yu am solo. ci biir jataay muy juróom benn weer yooyee lu ko sunu borom subhaanahu xamal bokk na ca xamal gu mu ko xamal ne ko may yi nga xam ne sunu borom subhaanahu wan na ma ko gannaaw liggéey bii nga dëgmal te wax ci ak man muy bari lool nga di ko séddale lenn li nga di ko séddale fii lenn li nga di ko séddale fële am na koo xam ne day bëgg naa kenn du ko ci jiitu kenn du ko ci ëppale muy mu Amadou Ndumbe Xabaan ndax bi nga wootee sa woote bi képp koo xam ne maam maaram moo la boole ak moom moo la jiitu ci liggéey bi moo la ca man nangu la loo xam ne kenn nungulu la ko di jiitu ci say tool di ca man ndax moo fay jiitu moo fay mujj te mooy man kum kum fa fekk ak ku ko fekk kon nag bëgg naa teraanga joojee bu agsee bu ko ca kenn jiitu bu ko ca kenn ëppale mu ne ko insha mu ne ko beneen ba ca des nag ah sarak yi di sama njaboot gi bëgg naa bu loolee agsee bëgg naa liggéey bii nga xam ne moom nga sumb di ko liggéeyal yàlla ak rasulullahi ci tasaare diini islaam fexe ba ñépp di dundal sunna ak di ko dund gannaaw bu kenn ku nekk jànge ba xam li nga war a xam ñu yar la ba nga mel ni nga mel bëgg naa sama njabootu bopp kii bu leen ca kenn jiitu bu leen ca kenn man ci liggéey boobu ci la jàppale ci jàngale ak yar nit ñi ak wan leen siraatul mustaqim ba ca topp mooy xiiwal gii ngay séddale mu yaatu lool damay bañ fi nga ma teg ak fi nga leen teg tax bu loolee nga naddi leen ca ba nga xam ne danañ ca am loo xam ne mën na leen a yóbbee ñu fuuyu walla kenn ci seeni njaboot fuuyu ba lii nga xam ne mooy liggéey bii ma bëgg kenn du leen ci jiitu kenn du leen ca man loola mën a jaar seen diggante ak ñoom loola moom maa ngi ñaan loo xir xir xir bu leen naddil ba naddi boo xam ne dana jaar seen diggante ak liggéey ba waaye nag na nga leen defal teraanga ak sutura soo xam ne duñu ñàkk lenn luy tax ñu sol seen dàll tëj daara jooju ak liggéey bi da wuti ko fu ñu fekk fu ñu nekk nañ am teraanga nañ am sutura te am ak doylu waaye nag bu ñu am lenn luy jaar seen diggante ak liggéey bi mu ne ko defal nañ la loolu baneen ba nga xam ne moom la ko mujjee dénk te loola lii ci jataay ba yàlla lu jiitu buy dem ci géej gi baneen ba ca toppaat nag gannaaw bu ñibbisee ci géej gi ci bi mu nekkee Mbàkke Kajoor ci fan yooyu mu ko ganisee loolu moom ci digganteeg maam Cheikh Ibrahima fan la da ko wax ne ko e noonu lislaam yi nga xam ne kat ñoo la songan yëg naa ne bàyyeeguñu njagam nag sunu borom dimbale na la ba mënuñoo agsi ci yow mënuñoo agsi ci kenn koo defar ba mu defaru ku jaar ci say loxo danañu jéem a jaar ci ñaneen ñi nga xam ne njaboot lañu donte ak ji ci dara ji ji ndar gee nag nga xam ne noon bi nga xam ne moo la sonal fa la nekk ña koy jàppale it fa la nekk ay njaboot yu mel noonu dañ faa fekk ay taalibe yoo xam ne ànd nañu yow jox la sa popp doy loo la waaye amuñu tawféex yi agsi ci yow ba nga defar leen ba ñu tul ci kenn du leen mën a soppi kenn du leen mën a walbati kon nag bu ñu nekkee foo xam ne amuñu kenn ku ñuy rus kon mën nañoo jaar ci ñoom ba am la ñu bëgg Ibrahima Fall nag bokk na ci ña nekk ga mu nekk ndar tax na lu baree bari ñemewuñu ko te rus nañ ko te damaa yëg ne am yëg ne mel na ne mi ngi sa xel boo demee ba toog danga ko sant mu jóge foofa gàddaay fa moog la mu fa aman ñëw fii loola nag laa gis ne bu amee ba kenn ku ñuy rus wala ku ñuy ragal nekkatu fa rek loola mën naa ki moom moo tax ma ñaan lu metti metti rek na am na am jeexit ju fa nekk ju ko may mu defa dem ak dellu si ngir ñu ragale ko ko mu ne ko may nañ la loolu loolu lépp tey di la taxawaay bi nga xam ne e moom la aman ci moom loolu moo waral eh, la jiitu loola ci mooy li jiitu lii ñuy wax mooy bi nga xamee ne suñu war anta sëri génn na àdduna te loola sëñ Cheikh naa bu sa am na lu mu ci junju xam ngeen bi suñ Mor Anta Sali génnee àdduna te suñ Mbàkke ibre ñëw bi dëj ba jàllee ba lépp tegewaat ci yoon fekk na ci mujjug ati sëñ Mor Anta e sëñ Bàkke Ibra ci boori kokki ci ay nijaayam dafa aman barab buñ ko tànnal ñu wax ndal la bi dëj bi jàllee nag mu jàll mu mu mu mu mu mu wax sëriñ bi ne ko kon maa ngi delluwaat seeti njaboot ga te bi mu demee nag sëriñ bi moom mu ngi toog di ko xaar bi mu toogee lu yàgg dellu si wut nag gannaaw bi mu yëg ne moom kat sañcal nañ ko ba mel ni faf ne toog foofa ah Seexul Xadiim wax Seex Ibra ne ko nag kon nag nan dem jëli ko ndax ak dikkam fii moom kenn doyuma ci lu may sama jëmmi bopp ji daal di dem am fa ab diir waxtaan ak moom ba juboo ci delloosi ko ba mu ñëwee mu ne ko dëkk bii di Mbàkke Kajoor siñ Mor Anta Sali sos ko tey man damay gàddaay delluwaat Mbàkke Bawol tey nag jox naa la ko ci ndigalal sunu borom subhaanahu dëppoo naa ci ak sunu borom subhaanahu wa taala ci jox la ko tey juboo naa sunu boroom ci jox gi ma la ko jox teyit xam naa ne mboolem li fi des ci lu ñu war a defal suñ Mor Anta Sali gannaawam nun njaboot gi lu ci gën lu ci gën a dëppoo ak ngërëmam aku bëggam lii amut du am ndax nag na nga toll ci moom ak fa nga ko féete woon ba tax na kon loola faggul naa la ne lii ma def kenn du ko dindi tey kenn du ko dindi ëllëg ci njaboot gu ñuy gu guy tudd di tudd Mor Anta Sali ndax lu ma am gërëmal yàlla la waaw kon loola muy loo xam ne tey eh, loola mooy sababus mu toog nag Mbàkke Kajoor ñu may ko jox ko dëkk ba ba buñ nee sëñ Mbàkke Kajoor rek donte maam Anta Sali moo sant Mbàkke Kajoor de waaye xel du dem ci kenn ku dul sëñ Mbàkke Ibra ngir jëfi suñ suñu borom subhaanahu wa joojee nga xam ne jëf yi suñu borom joojee nga xam ne Serigne Touba wax na ne lii dama koo def ci ndigalal suñu borom subhaanahu gannaaw bu ma ca amee ndigalam moo waral itam kenn ku ko dindi wala kenn ku ca moo woon a wax dara am kon kon waxtu wi dafa kii ñu dem julli ji te rek daanaka sax jeex na waaye ñu tëj ñu julli ji kon te baax na kon mbokk yi dañoo waxtu yi dafa noo dab dañoo bëgg a àgg ci jàkk ji jox waxtu sunu borom bi insha allahu kàddu yi ñaari kàddu rek moo des ci gannaaw bu sëñ docteur Xaadim eggalee nañ dellusiwaat ngir eggale liggéey bi ñaari kàddu rek moo des jërë ngeen jëf